درس به درس به noonu ci àndal al ustaaz Mouhamad al Amin bi tey ci téere wi di al azkar al nawawiya bu imaam al nawawi aalimul aalam woowule incha allah. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqi sidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ورضي الله عن تاج العارفين سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن خليفته على الإطلاق شيخ الإسلام وسعادة الأنام سيدي إبراهيم بن الحاج عبد الله ثم كذلك عن سيدي والشيخ علي بن الحسن وبعد مقيد الإسلام كي تربي نو درن كتاب الأذكار بإمام نووي نو تولون تي بنيو تي مي واخي ني اندي حديث يونتي صلى الله عليه وسلم مي واخني تود يالا مو غنا اوب غنيل تي جهار تي يونو يالا وندي اون تشولو بري ديغنتي خام خام خامي ني غيس ني جهار فرطلا دي ليغا خامني فرض كفايه لا waaye zikar duul farata sunna la ñu ne kon sunna nan la mën a gënee farata waaye dañuy fàtte rek ne booy dugg ci diine ji zikar moo la ciy dugal fekk waxoo laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah doo dugg ci lislaam kon bala ngaa ne la fi wax ne bala nga ne naam ne fa balaa ngay nekk jullit wala ngay nekk jihaarkat ak looy mën di nekk dafay fekk nga tudd baati seede yi kon tudd baati seede yi te mooy zikkar moo gën li nga xam ne loolu moom moo tax yonent bi wax loolu ne di li nga xam ne waa ji dafa jihaar ak jaaseem rey ci yéefar yi ba jaar ci ja taq daat ba jaar ci ja damm sax du tax du tere kiyee ko gën zikkarkat bi gën moo ko moo ko ëpp yool moo ko ëpp daraja ci yàlla banaa loolu ma rectifié ci xadis abi saïd al xudri bi mu waxoon ne yonent bi wax na ne man qaala raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi muhammadin salallahu alayhi wa sallam rasulan wajibat lahu aljanna bi may def kiyam moom abu saïd al xudri dama wax ne mu ngi tudd Xumayd euh, te Abu Saïd al-Xudri tuddul Xumayd mu ngi tudd Saad ibn Malik Saad ibn Malik moom la tudd moom Abu Saïd al-Xudri loolu laa doon rek fii foofu dellu li nga xam ne moom la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne daal euh, li gën ci loo xam ne nit a koy def mooy la mooy mooy zikkar waaw boo ko seetloo jaamu yàlla yëpp sax dafa ànd ak zikkar booy aj da ngay <coughs> yàlla yi julli mi nga xam ne moo ci gën boo koy def da ngay zikkar wax na alquran nee na sax wa aqimi salaata li zikri moom la waxoon yonte yàlla Moussa tuddal yàlla taxawal julli ngir fàttaliku ma mooy ngir tudd kon rikki jaamu yàlla bi gëna mag ci jaamu yàlla yi euh zikkar la waaw moy julli te julli moy zikkar kon julli moo gëna mag ci zikkar yi moo tax ñu wone julli moo gëna mag ci xet jaamu yàlla yi mu bàyyi lolu andi benen hadith bo xamne ne bi sallallahu alayhi wasallam sallam wax na ne wa rawaynaa fiihi fi kitaabi ibni maaja an abi darda عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال الله تعالى من تدعي الله فأنا ينتبه صلى الله عليه وسلم هو في حديث بخمد سيدنا أبو درداء ويكيكو جهد يعني يعني قرمكو من ينتبه صلى الله عليه وسلم هو أحد من أحد ملين صلو لغن تسين جفي فأنا جفي يغير جفي يب موحلين بيشغن لولا ينتبه صلى الله عليه وسلم موحلين بيشغن السل فيالله yàlla mi nga xam ne moo leen seen buur bi moo leen moom wa arfaya fi darajatikum te itam mooy gën a yëkkati seen daraja te itam moo gën ci yéen ngeen yor wurus bu bëree bëree bëree bëri ak xaalis bu bëree bëree bëri ngeen dépensé ko zahab mooy gànjara mooy or uh, wariq nag kooku alxuraan wax na ko آه وعصوا بورقكم هذا إلى المدينة ورق موي قالس waaye du xaalisu bi nga xam ne mooy xaalis bi ñuy def ci kayit yi mu nekk xaalisu kayit warex suñ ko waxee ñu ci jublu xaalis bi nga xam ne moom lañ tëgg waaw mooy pièce al wareq mooy pièce pièce xaalis bi moom la ñuy wax wareq day bañ baatu waraq bi nax la nga defee ne xaalisu kayit lañ ci jublu mais li ci jublu xaalis bi nga xam ne dañ ko def mu nekk ay pièces maanaam nga amoon wurus wu bëree bëree bëri bëri wala nga am xaalis pièces yu bëri nga joxe ko ci yoon yàlla am na lu ko gën wa xayrun lakum min an talqaw aduwakum te itam moo gën sax ngeen dajeeg seen noon bi wa tadribu anaqahum ngeen di dóor seen i doq maanaam moo gën dem jihaar di rey nit ñi di dagg seen loos yi ñoo ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ba mu waxee ne loolu lan la gars yi ne ko ahakay soxal nañ loolu mu ne leen loolu mooy zikrullahi taala mooy tudd yàlla tudd yàlla moo gën yooyu yëpp mu ne tudd yàlla moo gën yi mu wax yëpp waaw li ñuy jëf yëpp di ko defal yàlla la ci gën a tedd te yàlla nangu ko ak la ca gën a yëkkati da yëkkatiku daraja te gën wurus ak xaalis booy saraxe ci yoon yàlla gën nga jihaar rey lu bari ci noonu yàlla yi li ko gën mooy zikkar kon ba tey zikkar si mën na mooy li nga xam ne moo gën zikkar mooy li nga xam ne moo gën xadis bi presque moom itam loolu lay wax euh, Abu Darda mooy ki nga xam ne moo ko solo waaw wér lañ ko درداء ترم عوامر ابن عامر ابن مالك ابن زيد ابن قيس خزرج لبوك والأنصار له ومدينة له آه، وكان آخر أهل داره إسلاما دنا مو مجدقو سوى كرم موش مجدقو لتل الإسلام أنا قاوت دقو تل الإسلام وآيه دقو نتل الإسلام وحسن إسلامه إسلامه بتم رفت ku déggoon fiq la borom xam-xam la xakim la aaxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam baynahu wa bayna salman moom la yonent bi bokkale woon ak salman farisi xam nga biñ ñëwee madina saxaaba yi gàddaay ñëw mbir mi dafa tar lool mu jël muhaajiri ne di leen gàdd di leen bokkaleeg lansaar loolu la stratégie boobu la yonent bi njëkk a def sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee madina ndax gis na ne bëriwuñ comme bëriwuñ nag nañ fexe boole seen diggante euh, ñi am di dimbale ñi nga xam ne amuñu loolu mooy li yont bi dafa sallallahu alayhi wa sallam moom mii nag moom Salman ko booyaloon Salman itam jógewul Màkka waaye dafa nekk koo xam ne moo nga jóge woon ba Faris moo tax yont bi sallallahu alayhi boole ko woon ak euh, Sidna Abu Darda mi Euh, yonent bi daana wax ne xakimu ummati moom la ko yonent bi daan tuddee mooy xakimu euh, xeetam bi maanaam mooy le sage de la umma islamia mën ngaa wax ne mooy góor gu tedd googu muy Awaamir Abu Darda gannaaw xare Uhud daal lii xare yi ñëw ci gannaaw xare Uhud yëpp fekkee na ko Euh, moom Abu Darda euh, nit ku la euh, Masruq daana wax ne gis naa lu bari ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa ne li ci ëpp xam-xam am Omar ci la bokk Aliyu Abdullahi ak Muaz ak Abu Darda waaw Abdullahi ibn Omar daana wax ne waxal waxal ñu ñi nga xam ne ñooy jëf waaw daana wax ne xaddisuuna an il amilin Muaz wa Abi Darda waaw عن العاملين معاذ وابي درداء من اي جفكر لجون في الاسلام سيدنا عمر رضي الله عنه شي جمنهم موكو جخون منك قاضي من اتجلني دانا نك قاضي سفكيني أه سيدنا عمر دفا فادو مو موكي هاني من اتجلني من جينا نتي خلافة سيدنا عثمان تلقنا وير في أتم fanweer ak benn ñi fanweer ak ñaar ñi fanweer ak ñett euh, boo demee Damas foofu la armelam nekk moom ak jabaram ak doomam

moy mom la moom moom da ci hadith bi yor ci bi don waxe wax ji kon gis na batay hadith bi dafa niroog bële moy ne jihad ci yor yàlla limi bag bag bag amna lu ko gën li fa gën moy tuddu yàlla qaala alxaakimu abu abdullah fi kitaabihi almustadrak ala على hada هذا حديث صحيح الإسناد kër la xadis bi lay wax mu ne xaakim wax na نرى حديث بي حديث لبو حمد حديث بوير لا فلا كلا لغي كان لغوير لا لو لوحك حديث بو مولون اسمي وروينا في كتاب التربيزي بطيطة بكتير التربيزي بجونا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم الليلة أسري بي وقال يا محمد آه، اقرأ, اقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الترمذي حديث حسن متيتم من جلنا حديث بي كي وصل نجبتي جلنا كي ترمزي مو إمام ترمزي موي وحنا جلنا نجي عبد الله بن مسعود نيوتي بي صلى الله عليه وسلم نينا نسينا أك إبراهيم عليه السلام مانا يوتي بي نينا نجينا أك إبراهيم نيوتي على إبراهيم نيوتي على إبراهيم muy guddi giñ ko rañaane mu dem wax ko ne ko yow Muhammad jàngalal sa xeet wi nuyoo maanaam nuyul ma sa xeet Ibrahima wax na yonent bi ne ko nuyul ma sa xeet te nga solo leen ne aljanna suuf su tey fa nekk ndox mu neex fa nekk itam waaye itam ay pàkk la yu yaatu waaye nag jëmbët lañ fay jëmbat mooy subhaanallah maanaam ku bëgg ëllëg nga am fa yoo xam ne yu jëmbat la nee na del wax subhaanallah ak hamdu alhamdulilah laa ilaha illallah akbar loolu xadis boobu am laayeen ma son moo ko bëgg wax a dugg aljanna ëllëg euh, gis pàkkam yu yooyu te itam xewlu ci la fa nekk ci suufam su sell soosu day la wax yooyu abdullah moom la ñuy wax abu abd mooy abu abdourahman abdullah ibnu masoud ci abadi lay mooy abdullah ibnu عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو ابن عاص اك مومبي عبد الله بن مسعود يوم لي العبادي ده عبد الله يا حمد الدول اللي جاي يوتي صلى الله عليه وسلم اي داو موي عبد الله بن مسعود ااا يوتي بنو هزيل لبقت ibnu Mudrika moom ci jaahiliya mu ngi doon pacte ak Abdul Haris ibnu Zuhra waaw moom ñoo defoon taxaaluf ndeyam Ummu Abdu lañ koy wax Uzayl yi ci Banu Uzayl la bokk moom nag ku teel a dugg yoon diine yonent bi sallallahu la mooy Abdullah ibn Mas'ud ci Makka la duggee ci diine atam juróom benneel dana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo romb ci àll bi muy sàmm juróom wala muy sàmmal Uqbata ibn Abi Mu'ayt yéefa bu màgg boobu bu bon boobu moom la doon sàmmal ay gàttam yonent bi sallallahu ne ko ndax am nga soow mu ne ko waaw waaye nag soow bi moom moo ko dañ ma cee jox rek ma di ko sàmm mu ne ko waaw ndax am na gàtt boo xam ne gàtt bu jigéen boo xam ne benn kuy mosu koo togg nee mu andil ko benn gàtt boo xam ne la da gàtt boo xam ne benn benn jotu mosuñ koo mosuñ koo tëbu nee bi mu ko andee مو يوتي صلى الله عليه وسلم دلال انات بي نانا بيم لال انات بي رك ا ميو مي كومونسي دي سوتيكو يوتي بي نان نانتي نانا مو نان دالي جوخ ابو بكر مو نان dana mu naan jox Abubakarin mu naan bi ko bi mu paree mu ne batt bi dellul na nga meloon batt bi daal dellul mel na meloon nee na mu dellu mel na meloon bu mu ko waxee nag Abdoulaye Mas'ud ne yonent bi saa sam lii nga jàng nii daal laa bëggoon nga jàngal ma ko xanaa wax yi nga doon déggoon ngay wax yonent bi daal di boppam masaa bopp bi ne ko yow anta gulaamun muallamun yow xale nga boo xam ne ku ñuy xamal ngay doon bi maanaam yàlla daan la xamal lii ma indi muy moo tax mu ne moom Abdullah ibn Umar jël naa mokkal naa ci juróom ñaar fukki yoo xam ne ni ma ko mokkalee mbindeef mënu cee wuuteeg man maanaam kenn mënu cee xëccoog man kenn raw ci dama bëgg a wax ne maa ci raw ñëpp daana wax ne moom mooy juróom-benneel ñi nga xam ne dugg nañ ci lislaam maanaam juróomi nit a ko jiitu ci lislaam ci kaw suuf loolu la daan wax nee booba juróom yoon tiine ji amul kenn koo xam ne nekk na ci kaw suuf lu may juróomi nit maanaam juróom benn nit moom ak ñe juróomi nit kon daal ku teel a dugg ci lislaam la loolu la bëgg a wax danañ mooy ki nga xam ne moo njëkk a biiral alquran ci Makka bi maanaam moo ko njëkk a jàng ca kaw ñëpp di ko dégg gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci nga xam ne gàddaay nañ dem Habasha mooy dem Éthiopie ñëw fii ci Afrique mooy bi nga xamee ne jullit ñi ñu ngi leen di sonal ci Makka yonent bi jox leen digal na leen nañ dem gàddaay dem Habasha am na buur bu fa nekk boo xam ne chrétien la du tooñ te kenn du tooñ ci kenn ci peggam ña demoon Abdullah ibn Mas'ud ci la bokk gannaaw gi gàddaay na itam dem Medina xare na Badar yàlla def na sax mooy ki nga xam ne moo dagg boppu saay-saay bu mag bi muy Abu Jahl da nga xamee ne ñaari xale ci Medina yoon nañ seen ràbb yu ñaw ñëw laaj ci biir xare bi ne kan mooy saay-saay bi nga xam ne mooy xas yonent bi ñoom ne dañ leen ko war rek moom lañ bëgg a gis bañ leen ko waree ñoom ñëw ki jëm ci ndeyjoor kii jëm ci càmmoñ ñu jëm ko mu daanu di bëmb muy bëmb nag Abdullah ibn Mas'ud ma ko fekk euh, tàqale boppam ak yaramam bi mu koy rendi sax mu ngi koy wax ne sa jaas ji bu ma ko sàmmee sa jaas yi sàmm ju bon jile bu ma ko reyee jëlal suma jaas ji ci sama donk bi nga reyee ma ko te wax ma yonent bi na ko fa ma jëm du ma fa fekk ku ma gën a bañ ci moom fii ma jógee itam du ma fi bàyyi ku ma gën a bañ ci moom maanaam yonent bi rek laa bañ kooku mooy Abdullah ibn Mas'ud moo rey saay-saay bu bon boobu muy Abu Jahlin nga xam ne mooy rasul kufri fi Makka kon fekkee na Badar fekkee na itam bayaatu Ridwaan mooy بيال دي وخني لقد رضي الله عن المؤمن اذ بانك تحت الشجره بوبي تم فكينكو فكينا يتم بولم قري يب فكينكو جملنا جملة سنعال قبلي بمعنى بيرت بصدر الله صلى الله عليه وسلم جميع مدينة بس بموما عدن بمي جملة جملة baytul maqdis ànd naag moom julli jublu baytul maqdis bi nga xamee ne changé nañ direction bi tam naka noonu itam moom changé na ko euh, ku yonent bi bëggoon la daan ko teral te daan ko jegeel boppam te daaw ko yiiru itam bu mu bëggaan a gis yonent bi da koy gis euh, ku daan dugg ci néeg yonent bi sallallahu alayhi wa la maanaam miinoon na kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana dox di ànd ak moom ci mbedd Medina yi euh, daana dox ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam euh, bu yonent bi daan sangu léeg-léeg day ñëw taxaw foofu euh, aar ko ba kenn du ko gis maanaam dafay yiir yonent bi sallallahu alayhi wa buy sangu kooku nit ku màgg la Lele léeg yonent bi daan nelaw sallallahu alayhi wa sallam war mu yee ko lu mel ni julli jot mu yee yee ko dafa julli jot na loolu yëpp defal na ko yonent bi saa sa naka noonu itam léeg-léegaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a sol dàllam moom mooy ki ko koy sol maanaam daal mën nga ne ab ëkk néegam la bu yonent bi di dox bëgg ànd ak moom di ko téyel dàllam yi di ko ko solal ci dàllam yi kooku mooy euh, Abdullah ibnu Mas'ud comme ni te sëriñ si def taalibe yi dafa seen sëriñ yi bu ñu dox téye dàll yi bu bëggee sol nga solal ko noonu la ko daan def la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku yàlla may na ko ko téyaar nag bi yonent bi jógee wala mu toog bu toogee wala mu jóg mu jël dàll yi mboq ko def ko ci e, téye ko nii ci ay loxo bi maanaam daan mboq dàll yi topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko bëggee sol mu tegal ko mu sol ku won la ci diggante saxaaba yi ne mooy borom secret yonent bi dañ ko daan wax waaw dañ daan kii mooy borom secret yonent bi sallallahu alayhi waaye nag bokkul ak بين حزيفة اليماني بيا خبن مم مم لا ينتي بخبلون سكرين أفقي وإلى الدجاه نكيم ويسكر كاري ينتي صلى الله عليه وسلم لولا صحابي دار الله مم عبد الله بن مسعود بدنا واحد صح كي دال بغمدي جو دال ينتي صلى الله عليه وسلم قال دجاه بغمدي جو دال ينتي صلى الله عليه وسلم ñu ko jege ñi naan mooy dàll la kay ñi naan sax mooy labal ndam li nga xam ne moom lay euh, xam nañ ko waxee moom lay ci lay ci lay kii kon daal bu jege woon yonent bi la ñuy bëgg bokk na ci yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi waaw رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي حمد آه. وسقطت لها ما سقط لها وإن قرآن ديو لك صلى الله عليه وسلم تي ملوكات حكي جبم آه. ما نعني اللي ونكو حمدنا بوقولي بدم du neena ku ni néewoon kàttan la maanaam yaram wi réyutoon noonu waaye itam ñuul la gën a jege dañ loon ko xam ne ku sew la ku gàtt la waaw guddaat guddul dul ni ko xam ne ni ku njor la ni ku gàtt la kooku mooy Abdullah ibn Mas'ud waaw dafa nekkoon ko xam ne itam tànk yi dafa rinkoon tànk yi dafa rëgg mooy dafa yaatu waaw tànk yi tànk yi dafa rëgg kon dañ ko ko daan ñaawale sax saxaaba yi di ko ñaawale waaw ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne la rajul la rajul la rijlu abdullahi fi lmisaani asqalu min jabal uhud yonent bi ne leen Euh, doju uxut buñ ko tegee ci balance ca yàlla waaw maanaam buñ ko pesee ci yàlla tànkam si ngeen di moo gën a rëy doju doju uxut moo ko gën a diis waaw sew tànk yi na waaye diis nañ ci yàlla dañ ko xam ne joxoon nañ ko mu nekk di atte ca kuufa jamono xilaafar sidna Omar ak ci lëf ci xilaafaab sidna Ousmane gannaaw gi nag mu dellu si Medina ba fa la génne àddina ñii ne déedéet mu nga génne àddina ca Kuufa ci atam fanweer ak ñaar am na